ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jël kàddu ci turu comité d'organisation de la FIARA bi nga xam ni def nañu ko ci ñaar bii mooy ñaar fukki at ak ñeent kilifa gu mag gi muy président de la république ñëw dara jaal ko ñëw visiter FIARA muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu di ko gërëm di ko sant ci yëg-yëg boobu ci visitam xamal nañu ni at mu jot day teew Fiara parce que gis na ni lii day jëmale ab dëkk kanam kon loolu signe d'encouragement la de reconnaissance la te ñu ngi ko ciy jaajëfal jaajëfalit premier ministre am Ousmane Sonko ñëw na fi ñu ngi koy gërëm moom itam di ko sant jërëjëfati aussi monsieur Mabouba jaañ mi nga xam ni mooy ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage bi nga xam ni bi ñuy préparer Fiara wax nañu 5 heures du matin wax nañu 6 heures du matin wax nañu 7 heures cela veut que il est open mind modèle la de développement nit ku disponible la nit la koo xam ni xam na liñ ko dénk parce que li ñu bugg rek moom mooy képp koo xam ni fal nañ la ci réew mi pour que nga mën ñu apporter dara rek nga jage askan wi te itam ci fiara bi man ci laa koy door a xam bi ñuy door a jëm ci fiara mais bi ñu commencé liggéey ba léegi vraiment il est très disponible très engagé vraiment très open ñu ngi koy gërëm di ko sant gërëm it ministre de la pêche ñëw na fi ministre de la famille ñëw na fi secrétaire d'État chargé de coopérative et des paysans ñëw na fi secrétaire d'État chargé des industries euh, euh, petites et moyennes entreprises euh, ou bien petites et moyennes industries moom it ñëw na fi am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañu fi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci yëg-yëg bi ñu am ba ñëw nemmiku ci FIARA bi nga xam ni baykat sàmmkat nappkat moo ko tax a jóg waaw ci loolu nag dafa am loo xam ne loolu bu amee dañu yàgg liggéey ci FIARA FIARA 1999 moo doon première édition bi Abdou Diouf ubbi ko ñu pare Abdoulaye Wade ñëw fa 2000 Abdoulaye Wade ñëwaat 2001 ànd fa ak Yaya jàmmee après foofu la président gëj a ñëwee ci 2001 2006 ci la ñu rece 2006 euh, 2007 ci la ñu recevoir président Macky Sall mais booba premier ministre la woon. kon bu président Bassirou Diomaye Faye Diomaye Diakhar fay ñëwee ubbi si fi euh, ñëw ci Fiara bi visité loolu yëg-yëg la loolu lu rafet la te loolu signe d'encouragement la parce que thème bi mooy lan souveraineté alimentaire face au changement climatique bay dunde nag mooy suñu slogan te it dañ ci war a bay suñu laaj ça veut pas dire que am nga master wala am nga diplôme bi am diplôme bi waroo mën lancer wu ci entrepreneuriat parce que dëkk bu li la mën na at bu jot embauché wala use trente mille ak quatre mille étudiants kooku day wax lu ko neex attaque ni mu jagee te école bi six mois la sept mois ñu dem bac diplôme yi commencé kon je lance en appel à la jeunesse nañu futtiku ni jigéen ñi def boo parcourir FIARA da ngay gis soxna yaa ngi fi baykat bi bu bayee jox leen ñu transformer tey jii nii et puis ñun loolu mooy suñu thème souveraineté alimentaire bay dunde soxna yi ñu ngi ci ñu ngi liggéey ci emballage bi ñu ngi liggéey ci leneen dafay jaadu gis nañu ay jeunes yoo xam ne ay modèle lañ man gis naa fi ay jeunes yoo xam ni ce sont des millionnaires ñu ngi fi ci xar yi ñu ngi ci lapin yi ñu ngi ci pigeon yi ñu ngi ci euh, comment ça s'appelle micro jardin yi kër gu ne war na mën a am micro jardin parce que bu njëkk da doon wax tookooru kër gi olof moo naan tookoor mais toolu kër gi lañ doon wax parce que ci ginnaaw la nga dem Europe ñun la potager bi donc dafay jaadu muy journaliste bi di Euh, comment ça s'appelle technicien bi wala benn jeune wala leneen ku nekk war nga mën a am benn une petite exploitation boo xam ni sa te permettra am na yoo xam ne di nga mën a def ay économie parce que soo ko soxlaa rek da ngay xool sa ginnaaw kër wala feneen nga jël use góowee dem ci leneen daal donc ñu ngi gërëm exposant yi gërëm aussi sama ay collaborateur yi nga xam ni guddi ak bëccëg ñu ngi nekk ak man sonn parce que man ku ma xam-xam ni je suis très engagé du bàyyi dara mu sedd damay dem ba jeex donc liggéey ak man yombut mais dañuy jël pas-pas boobu ànd ñu am coordination ba loolu moo waral lii nga gis gërëmit direction générale u CICES foofu dama fay taxaw jël ko teg ko ci loxo loxoy directeur général bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon mu ngi nekk ci suma wet pour rek FIARA am réussite parce que FIARA fierté nationale la ku ko bëgg ak ku ko bëggul it loolu la yàlla def te it amul tànki ginnaaw tànki kanam la am incha allahu rabbi li koy firndeel mooy ci biir fiara bi dañ ci kale benn siyaara parce que baykat yi mënuñu leen xañ seen deux semaines bi wala trois semaines bi li ko waral mooy ñoom sàq yi ñu yor seen kër ñu di ko wax grenier fiara moo leen di permetre da ngay fiy toog nit nee la man li may dunde at fiara laa koy jaayee bu ma ñëwee jaay ko dem naweti amaat leneen defar góob bàcc def lépp dugalaat ci sama grenier di jaay la nga xam ni mënu ko jaay ca gox ba wala ci dëkk ba ci fiara lay ñëw liquider ko pour mën a dem préparer jiwaat nawet kon kooku bu fiara bi gàttee dafa am préjudice bu mu koy indil ñun ci suñu ay gis-gis ñu toog waxtaan ne war nañu créer benn salon mooy siara bi mooy salon international de l' agriculture et des ressources animales at mii am nañ ci ay exposants yoo xam ne jóge nañ itali boo xoolee fii on avait une délégation de 60 personnes am na ñu jóge Turquie ñi jóge France ñi jóge Belgique loolu dañ koy rafetlu cela veut dire que ya a un intérêt intérêt bi nag li tax mu am njariñ ñooñu ay investisseurs lañ ñu ay homme d'affaires lañ ñooñu ay capitaine d'industrie lañ bu ñu dikkee danañu gën a jëmmal suñu bay mi gën ko yokk parce que dañuy indi lu doon machinisme agricole indi apporter des solutions pour l'emballage entre autres sur d'autres domaines su ko defee suñu agriculture gën a mën a pick up gën a mën a comme li ñuy wax rek dina doon produit bu vendable et on fera dinañu def Dakar carrefour de l' agriculture ouest africaine te boo xoolee boo duggee ci biir FIARA bi tax ñu yokk ko yokk dañ ko ba le 30 boo xoolee Afrique sowu jant dafa am ñu ñëw en retard ñoo xam ni at mu jot ñaar fukki at ak ñeent dañuy ñëw mais ren dañu xawoon a pan def ay jamono ci àll bi ñu waxtaan ak direction CICES di ko rafetlu di leen gërëm di leen sant ba ñu jàppale ñu ñu yokk ci ñetti fan pour permettre ñooñu ñu vider seen ay bagage euh, alhamdulilah yàlla mu ngi ciy def jàmm gërëm conseil technique yi nga xam ne ministère daf leen a détaché woon indil ma leen ñu toog di jàpp ci bis bi forum yi ñoo ko doon organiser quotidiennement dinaa leen citer mën nañu wax AAS c'est le conseil juridique. du ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage mën nañu wax euh, monsieur Dramé conseiller technique la ministère mën nañu tudd madame Dia conseiller technique la ministère mën nañu tudd madame Sané c'est la directrice des productions animales ñooñu ñëpp ñu ngi woon fii vraiment pour que FIARA bi mën a am ndam te yàlla suturaal nañu ñu ngi leen di gërëm di leen sant FIARA nag day gërëm aussi exposants yi nga xam ni ñëpp teew nañu ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp gërëm borom puus-puus yi gërëm journaliste yi parce que lu ñu fi jaay borom puus-puus yi ñoo koy génne les porteurs ñu ngi leen di gërëm di leen sant aussi ci collaboration sans faille bi parce que yàgg nañu loolu beneen affaire la porteurs yi ak ñi nga xam ni ñoo yor parking oto yi FIARA dafay permettre ñu bari ñoo xam ni ci trois semaines yi tey dañ ñu ngi jëm tabaski dinañu am loo xam ni ci emploi bi dinañ ko mën a dem yóbbu seen kër de dem défendre dignement ñëw taxaw am lu ñu jàppale ci kër gi. kon muy ñu yor circulation bi ci biti di parking bi ñi nga xam ni ñooy porteurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen disponibilité gërëm it gendarmerie bi ñu duggee fii ba léegi ñun ak ñoom la ñu ngi leen di gërëm di leen sant taxawaay bi rafet na vraiment. on se plaint gërëm it sécurité locale bi nga xam ne indi nañu leen fii ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci loolu di wax nag FIARA moom jàpp nañu ko du 15 avril au 5 mai 2025 SIARA mooy salon bi ciy am def nañu ko du 28 avril au 3 mai waaw loolu nag dafa am lu mu laaj dafa am ay défi yoo xam ni man dama ci engagé wu mooy que ni ren li ma am ci exposant année prochaine bu neexee sunu borom chapiteau bi bu ma yàlla dimbalee bëgg naa ko doubler mu doon SIARA bi te am naa ci yaakaar parce que j'ai eu des retours yoo xam ni mu ngi may rassurer comme quoi que ni ils sont partants pour prochaine édition rien que italien yi fii rek li ñu fas yéene ñëwaat fii bu ñu dikkaatee ku fi jaar bu ñu neexee yàlla déwén di nga gis ni y aura un changement remarquable et que idée wu siyaara bi di nga gis ni euh, c'est manifeste et am na sens bon FIARA nag depuis trois ans dafa initier benn clinique mobile ak benn clinique bu tudd clinique Marie boo leen xoolee toujours ci bac bi fële ci fond bi à am na benn ambulance médicalisée boo xam ni mu ngi fëch every time day ñëw moo lay apporter les premiers soins xool ñi sonn jóge voyage seen tension jug ñii seen diabète wala am ay maux de tête wala am ay migraine wala lépp lu la mën a dal rek boo dikkee y un docteur qui est à ta disposition et un infirmier plus un ambulancier loolu c'est pour rek une assistance de proximité parce que loolu lépp dafa am loo xam ni dañu ko dund ci biir FIARA te itam ñaanatuñu yàlla mu am fi moo tax toujours dañuy mënuñu lépp mais on mettra quand toujours ci disposition wu exposants yi ak participants yi les premières intervention et les premières soins ci kaw loolu maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni leen ni kontaan nañ ci presse bi ci collaboration bi ci jàppale bi presse en ligne bi bàyyiwuñu kenn ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp communicateur traditionnel yi ah Babacar Sène bi nga xam ni ba Fiara di Fiara ba léegi il est à côté de nous vraiment dama leen di témoigner kii c'est un grand qui est modèle bu doon Fiara dañ ko toppee pour koppar dem na yoonam yàgg na donc grand yu mel nii réew mi dañ leen a soxla parce que ay mag yu am ñam lañu ñu bëgg développement Sénégal Pape Abdou Fall mënul moom kott dong kese mënul lenn mais il a fallu que ma Samba ma demb ak ma Paate jàpp ci pour que ñu mun am réussite bii nga xam ne moom la am ci 24e édition de la FIARA. war nañ leen affiche bi defe naa ni gis ngeen ko def naa ni mu ngi nii ñëpp gis nañu ko affiche vingt 24 yi 25e bi pare na bu ñu génnee fi incha allah rek commencé duggaat préparation bi parce que fu mu nekk nii ñu ngi ci 15000 et quelques mètres carrés. ñun li ma gëm man mooy bu ñu liggéeyee normalement avec les moyens du bord war nañu mun dem vingt deux waa à vingt trois mille mètres yoo xam ni avec le machinisme agricole bi nga xam ni ñun aujourd'hui c'est le maillon faible de la FIARA. à part ministère de l'agriculture gisuma kenn koo xam ni jàppale na FIARA ay jeunes yu dévoué yu engagé te ci loolu lay woo leen ni woo woo ci jeunesse bi nit day gëm boppam. impossible n'est pas sénégalais surtout xale yi jug leen ñu dem bay sàmmi nappi gérer suñu devenir jàng du def lenn dul ubbi open mind day ubbi sa bopp leneen li nga xam ne nag moo ca war a topp yaa koy jug dox ko lijjanti ko taxawal ko jëmmal ko boo ko jëmmalee ba pare nag nga défendre ko foofu la àdduna toll en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant au nom du comité d'organisation de la FIARA au nom du CNCR au nom de l'ASPRODEP gërëm nañ leen sant nañ leen di leen tàllal encore loxo li ñuy def développement la lii la Sénégal soxla Sénégal lii la soxla suñu yaay yi suñu soxna yi suñu sœur yi suñu jigéen yi nekk di def transformation di jug fajar ñëw di liggéey dañu leen war a wane vulgariser leen jàppale leen soutenir leen suñu rakk yi suñu doom yi ku ciy toog di xaar pour que ma sàmba wala ma demb retraité pour ñu mën la embaucher jàppal ni ñu gerte lost da ngay lose sa time parce que balaa kooku retraité ñu lay use moom xamal ni di nga bejjaa wala leneen jug leen ngeen lancé wu ci entrepreneuriat mu tuuti mu néew mu bari nga dugg ci yàlla ci lépp loo nekk rek comme ni sëñ Muntaxa wax nañ leen ci nekk rek buñ ci nekkee rek yàlla fekk si ñu ci